Euh, waaw point de presse bi c'est juste pour indi ay leeral leeral bi njëkk bi mooy euh, professeur lycée Ndayane nekkuñu en mouvement euh, demuñu grève parce que nag CGE la rek CGE lu normal la ci école boobu bu mun di doon CGE bi ñu ci bokk mooy d'abord administration mooy proviseur censeur intendant ak surveillant yi ak délégué professeurs yi muy man mi ak sama ñeenti morom mais également gouvernement scolaire bi da ciy bokk élèves yi tamit am ñu leen représenté ak CGE bi ak parents d'élèves yi ñun ñooy comité de gestion bi ñun ñooy voté budget bi ne proviseur doxalal léegi nag fii lycée bi dafa am lu muy doxee d'ailleurs sax noonu la war a doxe CGE bi dafa war a réunir lu mu gàtt gàtt ñaari yoon ci at bi loolu moo normal ñun nag bu ñu voté budget bi comme prévision la xamagu ñaata ñu bindu dañ naan provision léegi voté nañ budget bi doxalal waaye na nga woote fii ak ñaari weer maanaam li mu yéex yéex janvier na fekk nga convoqué ñu xam ñaata ñoo bindu ñu validé budget bi nga continuer doxal moom nag loolu wootee ko mu ngi woote ci mois d' avril bii bi mu voté nag concerne d'ailleurs xaalis bi tuuti moo ci des su ma yeboo ne sax jeex na tey ji bu benn machine paanoon rek dinañ problème en plus mu am ay dépassement maanaam mu def ay dépenses yoo xamante ni kenn sant ko ndax bu dee budget bi ñu ko woo voté woon dafa doyut dafa war a woowaat ñi ko voté woon ñu dollil ko xaalis autorisé ko ne ko defal lii ak lii mais loolu def ko ensuite daa amul lu ñu ko waxoon mu jënd nee na gaa jënd na ko ndax kii yor wàllu tirage bi néew nee na gisoon na fi ñaari machines yu bees waaye machine yi amuñ fi semaine ñu génne la ñu ne machine dañoo paan machine bu nekk ñu ngi ko jëndee 1 million 400 mille su ma muy ñaar te daaw jëndoon na ci yeneen ñaar donc loolu problème la maanaam ci effectif élèves yi tamit dafa am problème parce que effectif yi moom daf ñu ne ñi bindu ñaari junne la ak juróomi ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn waaye mu defar benn dëkk ba mu ne waaye ñi nekk ci classe bi ñetti junne la ak ak ak ak ñeenti ak ñeent fukk ak ñeent ñu ne ko lan moo tax ñooñu nag binduwuñu nekk ci classe yi mu ne moom def la nu nekk. mais ñooñu mënu ci dara man sama bopp sax bi mu wax la laa ko laa ko dama ko posé question bu mu tontoo laa ko ne man dama li ma gëm mooy ñooñu bindu na wala ba nga wax ñu concrètement lan moo tax ñoom binduwuñ buñ demee tamit ci biir budget bi am na ci par exemple boo jëlee association sportive bi ñoom dañu am ce qu'on appelle des fonds compressés maanaam fonds yoo xam ne ñoom ñoo ko moom kenn mënu ci dara mooy 200 francs par élève maanaam ñoom am nañ fi benn 600000. am na lu ci association sportive consommé ñu war a dese à peu ay quatre cent mille mais provisionné ne seen xaalis jeex na alors que ci délégué sax ab am na ci ab prof EPS bu toog mu ne ko deet ñun suñu xaalis des na ci la proviseur jëlee kàddu ne ko man da document bi ma leen jox dama juum document bi baaxul ñu ne ko proviseur kon nañ levé science bi nga defar sa document bi defar see effectif defaraat lépp ba mu leer nga convoqué waat ñu ñëw ñu waxtaan léegi nag loolu bu amee ñun délégué daa am lu ñu war comme dañ ñoo mandaté suñu ay ndaw ñoo ñu yebal dañoo war a bind rapport jox ko affiché ko salle des prof prof bu ñëw gis loolu mu normal ak mu bañ a normal mu am coow mu ñàkk am coow noonu la war a demee loolu lañ def léegi nag professeur ni léegi comme problème yi am na nañ toog ñun ñëpp ñu waxtaan parce que lycée bi ñun ñoo ko bokk ñu xool manquement yi ñu ci ñu ci amee solution loolu de moo indi coow li élèves yi nag ñoom comme fekkee nañ ko te ñoom xaalis bi seen xaalis la ñoom ñoo cotiser ku nekk 10 000 10 000 mooy seen inscription man mi di wax ak yow nii su ma neexoon tey ma bàyyi duma ma aw ma dërëm du ci gaañ parce que sama doom sax nekk fi fa joxewu ma ci dërëm it mais élèves yi ak parents d'élèves yi seen xaalis la ñoom ñoo génn démb ne ñoom dañoo bëgg indi leeral parce que seen si doxul loolu moom nañ ko laaj xale yi. mais bu ñu ne xale yi professeurs yi tax ñu génn ñëw tax ñu génn loolu information bu wérul la ñu élèves yaa ngi ni mun ngeen leen laaj am na ay professeurs yoo xamante bu élèves yi génn fekk ñoom ñu ngi ci devoir man naka lay xamee ne élèves yi maa leen ñu génn ba pare organiser devoir man bi élèves yi génn boobu man maa ngi ci yoon bi di ñëw ñoom élèves yi génn ma wëññeeku sama yoon nekku ci ñoom li ñu doxal man délégué professeur professeur lay rendre compte pas les élèves. euh, ce qui se passe dans le lycée, car nous voulons des éclaircissements. Nous faisons partie du CGE, nous sommes des délégués. Et si nous restons muets, c'est que nous sommes des complices et nous, nous ne pouvons pas accepter de telles choses parce qu'on a été délégués parmi tant d'autres et ce sont nos semblables qui nous ont délégués et nous ne pouvons pas accepter certaines injustices se produire et ceci des années et des années. Nous, a, nous avons été convoqués et nous avons assisté, nous avons remarqué et nous avons fait des constats. C'était flagrant et nous avons des informations. C'est une mauvaise gestion. On ne comprend pas où est passé notre agent. Comme l'a si bien dit Serine Salifay, ex-président du gouvernement scolaire, nous sommes à peu près 3000 élèves. Et si nous cotisons, nous donnons des inscriptions à hauteur de 10 000. Si nous prenons 10 000 francs par élève multiplié par 3 000 élèves, ça donne 30 plus un reliquat de 1 million de l'année passée, plus le budget de l'État. Au total, ça c'est 38 millions et poussière.